ndaxte li tax may sant yàlla am na ñoo xam ne ñu ngi daaw ñu ngi fi wante ren ñëwuñu fi ñii wàcc ne liggéey ñii suñu borom tawat jàppaleen kon yàlla defee ñu mën am wér ak wérle dañ siy dolli sant yàlla si bis bi di sant Serigne Touba mi nga xam ne dafa li yàggal lislaam l'islam ndax tey feebar bi mun nañ ne Serigne Touba moo libéré l'islam bi lépp ndax l'islam yëpp nërmalul nañ te bésu Serigne Touba bi. tax na gars yi feebar ak ñàkk feebar teewul ñun sëñ Tuubaa lañ gëm bu fekkee de ree nañu nañu suul fii mais ñaan nañ si barki Serigne Touba barki Magal Touba bi toore naa kenn bu ko kenn déggati si Afrique wala Sénégal monde bi yëpp yàlla na ko yàlla def si bés Serigne Touba bi ndax Serigne Touba moo libere senegal Serigne Touba moo libéré l'islam te ni mu ko libéré woon bureau ba seen noonu la libéré feebar bi amul këru diine yëpp dañ leen a kaawute ken nanguwul yëngal ku dul kon ni mu libéré won tuba bi eh, ndar eh, l'islam bi non libéré waté fébar bi ba ñep amna na sen activité ndax Serigne Touba mo liggéey sinu borom yalla fay ko lolu du waaw fi kenn du xalaatuñu corona li bañ rek ñu ne corona bi jeex na Touba nangam mais xolal inshallah allah képp ku dem Touba ba ñew ba nga ñaan si barki borom tuba, barki borom bés bi yalla bu fi dara yëngu yalla na corona kenn bañ ko déggati yalla na activité Sénégal monde bi yépp jàll jaare fii si bés si Touba bi nekk wér ba saayir wa baatin wax dëgg yàlla gërëm nañ sëñ Muntaxa bu baax ñu ngi koy gërëm di ñaan yàlla yokkul leen ndax kilifa la goo xam ne wax dëgg yàlla am nañ si moom yaakaar tey am nañ si yaakaar tey ak ëllëg ñu ñaan yàlla murit yëpp ak julli yëpp ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi te wér ndax wax dëgg yàlla am na nu mu doon taxawee rek ah kon ñu ne ñu ne màggal gu daam mais xam nañ ne ñoom bu dee zaahir ak baatin yëpp xam nañ ko zaahir bi nag état bi nga xam ne ñooy taxaw ne indi leen masque indi leen kii mais ñoom xam nañ lu xew suba xam ñu xew suñu borom defal na leen loolu ndax moo yëkkati yëkkati yëkkati deux cent millions jox état bi kon xam na lii ñëw boobu kenn defagul ket kenn defagul dara kon sëñ Mountakha dañ koy gërëm di ko sant di ñaan yàlla yokkal mébétam bi nga xam ne am na ko si Serigne Touba ak liggéeyal Serigne Touba yal na ko yàlla defaral. jaaxle woon nañu tuuti nag ak coronavirus bi mais sëñ Touba defar na lépp macha allah euh, ñëw màggal gi neex na macha allah waaw yaakaaroon nañ ne nag màggal du am na corona mais lépp ci liggéeyu sëñ bi la rek ñuy sant yàlla bu baax. ñooñu dañoo umpale woon sëñ Touba rek parce que ñun murit lépp loo xam ne sëriñ Touba war na ko rek ñun jaral nañu ko dañ ci dañ ciy ñëw ba mu jeex tey ji amaana yaakaaroon ne lii lépp du am mais sëñ Touba tey wane waan na dooleem bu baax a baax dañuy sant yàlla rek di yàlla corona bi yem. tey tey tey tey ci 18 safar bi yàlla na yàlla tàggale euh, corona ci gépp gépp mu jeex ci barke Seydina Muhammad yàlla mën na ko yàlla def ñu ngi kontaan bu baax tamit si yéen seen liggéey am na solo macha allah ñu leen di ñaanal suñu borom euh, na solo ñu ngi leen kawe seen njoot si liggéey bi ngeen def parce am na solo tamit ñëw taxaw ci liggéey Sëñ Tuubaa def lu mel nii di woo nit ñi di leen laaj dafa solo ci ay xibaar insaar bi kiy buur xibaar net yet yu teg juróom yaar ci jëri ji ma leem juróom yaar njàm me ne déglu ma la waral mbaaxaan jaay gannaaw dogal ba ca xatim ngir waay jaay aasi billaahi seytaane yàlla nu bur yàlla fiwu leen mbaaxaani mawle bi basee ko baa ma ñibisee maa ngi ziar di ziar mbokki taalibe yëpp di ziar xalifa kul murit sel na fi yàgg tuwér magal gii nii boo ko xoolee comme ça ñu doon wax corona corona boo xoolee magal gii nii xam ne magal gi car macha allah mën nañoo wax ne ba nu magal bu léegi magalu ren bii nii mbooloo mi bu si buñ ko seetee bu ci biir itam corona bi dafa mel ni ñun murit yi ñun yëgaluñu ko suñu yaram comme ni ko gars yi waxee rek ñun korona ragaluñu corona ragaluñu corona bëgguñu Macky Sall ñun sëñ bi rek ci sëñ bi rek di dox ci ay ndigalam di lu mu tere nu bàyyi ko ci loolu rek la ñuy wéy. di di ñaan mbokku bi yëpp nag képp ku fi ñëw ren rek déwén heure bii nii nag yàlla na nga ko teewee. yaakaar nañ Sëñ Tuubaa te gëm nañ ko tamit liggéeyam bu rafet bi tax na kenn ku nekk bëgg a doon murit kon maa ngi ñaan ci doole Sëñ Tuubaa li fi waay ziyaara yàlla na ko yàlla nangu ci barke Seydina Muhammad mi nga xamante ne nii Sëñ Tuubaa ba muy dem ci géej gi liggéeyal yonente yàlla Muhammad rek moo ko taxoon a jug kenn ki nga xam ne moom mooy maam Seeraay ma bi Sëñ Tuubaa dem ci géej gi. wax nañ ko ne ko yow Cheikh Ibra Fall yow lépp yow a mooy bi sëñ ba demee ba ñëw nag ne nañ ko Ibra Fall lii lépp yow kon lépp luñ gis ci Serigne Touba ci liggéey bu rafet bi rek ginnaaw yàlla ginnaaw Seydina Mouhamed Cheikh Ibra Fall la ko waral jaaraama maam Cheikh Ibra Fall jërëjëf Serigne. keroog borom ndar boole ko gi quartier sa ndar gal ka da soldar sa ñëpp boo ndar da di ñëw ca saa mu boole ko seen yëpp ak seen i buur ya ak seen i dak kenn desatul ci réew ya. waaw lii day gën a wonante rek Serigne Touba maanaam ay mbooleegut sax ay mbiram barki Serigne Touba lii dafay wane ne dañu war a kenn Serigne Touba xam ne Serigne Touba rek moo fi ne barki Serigne Touba buñ ñu li sëñ Modou Kara wax ñu ñëpp bu ñu maasee woon rek kenn Serigne Touba rek amaana ay corona ak yëpp du fi am duñ ko tudd sax Sénégal kenn du Serigne na nañu yàlla bàyyeeg moom ah yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem. loolu rek la ñuy nii bàkk ñaan di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér bàkk sëñ Touba mu yàgg fi loolu te wér waaw te xam ne jàppale na murid yi jàppale na askan bi waaw. di wax ni rek eh, màggal gi daal tabarkallaaw at bu jot rek day gën a li naan ala daw mi tabarkallaaw ndax borom dëkk bi borom bis bi liggéey na bis bi ñu ngi ñaan yàlla képp ku fi ñëw indi bàkkaar yàlla na ko ful. dindil la ko teggil la ko yàlla may nu fan wu gudd may ñu wér-wér le may ñu fekk ak tal boobu déwénee ñu mën koo defaat yàlla bu mu doon sunu mu jéelu màggal ci barke yonent bi ah di gërëm nag bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñi nga xam ni eh, jàpp nañ ci liggéey bi ba mu ba ñu agsi fii tey di ñaan yàlla luñ fi ñaan yàlla nañu ko yàlla nangul ci barke borom bis bii di wax ni yàlla bu mu doon sunu mu jéelu màggal rajo bi tamit nga xam ni yéen ñu jël tamit vraiment yàlla na yàlla def ko rajo télévision yéen a xam seen liggéey yal na yàlla fay leen parce que yéen rajo bi da ngeen nekk à la disposition des populations loolu rek moo leen tax a gis nga jënd lépp taalibi yal na leen yàlla fay. kale mayoon yindi ne seen kiimaan ya kile defal xaw si seen xar bata booleeg Makka kile yoroon Tuuba Tuuba yorale Mbakke kale fi waaxu baxaw toolum sunna kii fi ñoo bayaatal ñu toolam sunna yàlla nu bur yàlla defal tawféex fii saahira wa baatina ki leen doon yëgati doon seen mbokkum taalibe Serigne Modou Cissé di ñaan lépp luñ fii jàng yàlla Serigne bi gërëm ko ci barke Cheikhul Khadim wasali ala nabi wasali wax di bi ajadik barke Cheikhul Khadim